asalaamaaleykum mbokk internet igfm point sn ñu ngi am mbégte ak kontaante di dalal seen émission 13 minutes pour convaincre euh, monsieur yu Faye représentant du khalife général dans la région de Cap-Vert salaamaaleykum sëñ Faye. Euh, waaleykum salaam sëriñ bi. Euh, sëñ bi le khalife général des Mourides war na faire benn visite le 27 mai incha allah donc yéen en tant que représentant du khalife à Dakar. fan ngeen toll ci préparatif visite xalif bi. waaw euh, jërëjëf euh, comme ni ngeen ko xamee ñoo ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba euh, comme ni ngeen ko xame rek Serigne bi Cheikh Mouhamadul Mountakha al Bachir mi nga xam ni mooy xalif général des Mourides. dafa am ngan goo xam ne gi moom lay ñëw di gane si waa Dakar région de Dakar comme ni nga ko waxee sax région de Cap-Vert léegi région de Cap-Vert mooy région de Dakar nga xam ni ngan la goo xam ne gi e, mi ngi tàmbalee le 27 le vingt 28 ak 29 ci weer wi ñu nekk di weeru mais muy ngan goo xam ni nag daanaka daaw la ko bëggoon a def waaye xam nga jamono ji ni mu tudde woon rek ci euh, jafe-jafe yi ñu amoon muy crise sanitaire bi amoon un peu partout dans le monde moom la ñu fas yéene amal ci datt yooyu ma la wax muy ngan goo xam ni euh, ngan gu rëy lay doon Euh, ndax ki ñuy gane si moo toll noonu mooy xalif général des mourides di koo xam ni kii àddina bi yëpp rawantina Sénégal ñëpp ñoo ko yéene jàmm ñëpp ñoo ko màggal ñëpp ñoo ko bëgg ngir taxawaayam ci àddina bi ci réew mi ci askan wi ñépp gis nañ ko ni mu taxawee ci réew mi muy loo xam ni du lu tàmbali tey ndax bi mu laataa doon xalif général des mourides kilifaam yu baax yi fi jaar yépp nga xam ni ñii wéyjur lañu woon ci moom ñi ci des doon ay magam ñépp dañoo àndoon ak moom ci liggéeyub sëriñ Tuubaa bi cëral ko ci cër bu rëy boo xam ne bii mu ciy dox doxin woo xam ne bii daanaka doo ko xàmmee ak doxin bi nga xamee ne tey jii moom moo nekk ci kanamu njabootu sëriñ Tuubaa gi doon xalif général de murit loolu ci wàllu ñi nga xam ne ay taalibe lañu taalibe Sëriñ Tuuba ay murit lañu waaye ñi ngeen ñi nga xam ne sax du bokk ñi ci tarixa bi murit gi ñu bokk ci yeneen turux yi yeneen tarixa yi jàmm jooju ak bëgg googu lañ ko ëmbal ndax bu dul bu ñu bokkul tarixa it ñoo bokk diine muy diine lislaam muy tool boo xam ne bii yàlla moo ko séddale kilifa diine yi mu nekk ci ci waaram di ko bay bay wu rafet ba nga xam ne ñi mu ko seqalit ni ko taalibe murid yi bëggee ak kilifa yoon wi noonu la ko yeneen taalibe yi bëggee ak kilifa yoon yooyu mu ñi nga xam ne moom ñoom ñu bokk diine ji muy diine lislaam ñi nga xam ni it bokkuñu diine ñu nekk ci yeneen diine muy ay diine yoo xam ni yi li ñuy wax dañuy jàmm yàlla ñoom it noonu lañ ko bàyyee xel noonu lañ ko bëggee ngir li ñu bokk nga xam ni bu ñu bokkul diine it ñoo bokku réew mi ñoo bokk gëm yàlla waaye ñoo bokk réew mi nga xam ne bii moo tudd réewu Sénégal nga xam ni yéene jimu ci am di ko doxal di ci teg tànkam guddi ak bëcëg dem nañu ba ñoom ñu xam ni li ñu bëgg ci réew mi bëgg ko ci askan wi loolu la bëgg te moom la ci la ne guddi ci la ne bëccëg ba nga xam ni bu fekkee ni bii daf fii ñëw mën nañoo jàpp ni communauté yooyu yépp seen gan la ndaxte ñoom ñëpp ñoo bokkoon ci moom yéene te it euh, àddina bi yëpp xam nañ ni lii may wax du loo xam ne lu ñu inventé la lu réel la lu ñëpp constaté la ba ñëpp wëlbatiku d'ailleurs tuddee ko mbég mi ba nga xam ni slogan la boo xam ne bii sax doon slogan commercial ñi bëgg a jaay sax mbég mi la ñuy wax waaw mooy mbég mi nga xam ni loola day loo xam ne lii dafa nekk ci moom te du tey la ci nekk dafa yàgg a nekk ci moom nekk ci moom ba tey jii mu jiite njabootu Serigne Touba yëpp yàlla na yàgg yàlla na ko fi yàlla yàggal lool lool lool jëfandikoo kéemaan ci moom euh, may ko may ko kattan yàlla dëbb ko kattanam kattan kattan gu wér ba nga xam ni bu ko amee du rek muriti lay lay la fi nekkal di liggéeyal li murit yi waaye àddina bi lay liggéeyal diine l'islam lay liggéeyal réew mi nga xam ne bii dañ ko bokk sur le plan sociologique bokk ko mu am ay réalité sociologique nga xam ne lépp loo xam ne lii am na ci mi ngi ciy bay waaram bay ci bayin woo xam ne mbay mu rafet la mu yaatu moo tax ñooñu ñëpp ëmbal ko yiw woowu ko yiw wi ba nga xam ni bu ñu nee def fiy ñëw di gane si waa Ndakaaru daanaka ñëpp lay gane si ganu ñëpp la ganu ñëpp nag buñ ko waxee ku ci na danga cee am wàll ndax la mu diggaaleeg yow directement am nga ci wàll la mu diggaaleeg yow it indirectement am nga ci wàll bu dul diine ji ngeen bokk ni ma ko waxee bu dul tariixa bi ngeen bokk na ma ko waxee diir réew mi nga xam ne bii benn réew la kenn du ko xarñaar kon mu nekk loo xam ne lii ganu ñëpp la. ñëpp la lu tubaab di naan événement exceptionnel mesure exceptionnelle alors yan mesure ngeen di jël par rapport euh, visite bi si le plan sécuritaire sanitaire et tout tout tout. Euh, yi ñoo ngi ci xam nga daanaka ba ñu jëkkee def ouverture bi ouverture fii Masalikul Jinaan euh, bañ koy def. daanaka démb rek bi ñuy def CRD spécial bi am na benn commissaire u police nee na bi mu déggee ni sëriñ bi daf ñuy gane si dafa tiit ma ni ko tiitaange googu c'est partagé ndaxte ni dayoo ki ñuy gane si tollu moom la laaj ndaxte àddina moo fi ñëw àddina moo fi ñëw ba nga xam ne bii demb def nañu CRD spéciale avec le gouverneur ak tous les services régionaux yi nga xam ni moom mi nga xam ni moo nekk ci bopp exécutif régional bi jiite na ko muy les forces de sécurité bu police bu gendarmerie les forces paramilitaires ak tamit les services techniques yi nga xam ni am nañu wàll ci événement bu mel nii nga xam ni dañuy soxla soutien logistique gu état bi def nañ fi ñeenti waxtu waxtaan fànn boo xalaat rek xool nañ ko saytu nañ ko càmbar nañ ko ba déggoo ceeg ñoom nga xam ni mesure exceptionnelle lañuy jël ba nga xam ni ubbite gi nga xam ni buñ doon ubbite ubbi jumaa ji 27 septembre 2019 nga xam ne lu gàtt gàtt gàtt ay millions million ngi nit wala ñaari millions nit daje nañ fi nga xam ne jëloon nañu ay mesures waaye jàpp nañu ni am na ci lu bari loo xam ni sax jàpp nu woon ni noonu lay mel te ba mu egsee ëpp na loxo moo tax ñu jël ay mesures yoo xam ni ci maanaam wàllu kaaraange gi lépp loo imaginer rek. entre les forces de sécurité ñoom ci seen biir waxtaan nañ ci ba déggoo ci ba jël ay matukaay yoo xam ne daanaka ni sëriñ bi ñëwee ak niñ koy teeroo ak ni mu fiy toogee ba ziyaar yi jeex ba na muy delloo ca résidence am ba yooyu yëpp càmbar nañ ko seet nañ ko ba jël nañu disposition idoine ya nga xam ni yëpp moom la ñu war a jël loolu nag buñ ko defee xam nga ci ndimalu autorité yi la ndax am na loo xam ne lii seeni matuwaay la matuwaayu réew mi la ñu bokk kook ñoom waaye du loo bokk rek ñu boole la ci ñoom ñu jël matuwaay yu mat sëkk nga xam ne depuis longtemps sur le plan technique sur le plan logistique sur le plan de la sécurité ñoo ngi ciy jokkook ministère de l'intérieur ministre bi waxtaan ci avec les forces yi nga xam ne ñoo yor sécurité bi ci ndigalu nag bien entendu le président de la république bi nga xam ne bii mooy kilifa réew mi moom la yàlla teg ci boppu réew mi muy tamit euh, koo xam ne kii événement bu mel nii bu ne buñ ko masaan sollicité ñëw na ak dooleem ñëw na ak yéeneem assisté ñu ba mu sedd guy moo jox instruction yi son ministre de l'intérieur mu ànd ak ñun avec service compétent compétents ba mesure bu ne xalaat nañ ko te xam naa ni ñoom ci seen biir it dinañu waxtaan waxtaan woo xam ne xëy na nit duñ ko fekkee pour mën a jël des mesures exceptionnelles ba nga xam ne xëy na mbetteel ga ñu amoon ci nit ñi ca ubbite ga ak la nga xam ne lii xëy na au dernier moment la ñu xam ne mbir mi mi ngi bëgg a ëppi loxo loolu lépp jàpp naa ne ñoom ci seen biir ay professionnels lañu xam nga Sénégal en matière de sécurité loolu dans la région en Afrique c'est connu de partout on les appelle de partout pour les maintiens de l'ordre dans dans les autres pays en conflit kon xam nga ni ñoom xam nañu loolu seen métier la waaye nag seen kilifa yi leen yebal mettre leen à la disposition du xalif et de la communauté wax dëgg yàlla moo tax ci seen tur ma di leen sant di leen gërëm tey ñaan yàlla na yàlla na leen yàlla dimbali yokku ndimbal ci ñoom côté électricité parce yi moom Dakar commencé na di voilà am jafe-jafe ci fourniture de électricité bi est-ce que côté boobu tamit Senelec joxe na ay garantie pour que vraiment. waaw dama ne la tous les services techniques yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi. bi nga xamee ni ubbite gi moo ëppoon ni nit euh, tabarkal la amuñu ci benn couac sur le plan maintenant accueil hébergement pèlerin yi. yooyu yëmit ñun comité d'organisation bi nga xam ne fii la nekk état pied amul benn benn benn point boo xam ne bii bàyyi nañ ko ci nit ñuy héberger ak restauration bi nga xamee ni bii tabarkàlla xéewal yi nga xam ne war nañ ko jox nit ñi ci distribution ndox mi ndax xam nga dañu nekk ci période du tàngaay prévoir nañu jënd ay ndox ñoo ngi xaar tamit ay yeneen i contribution ay mbokki taalibe ak des bonnes volontés yoo xam ne bi bu ñu indee ndox ndax nit ñi période de chaleur la ñuy nekk te ajjuma ji fi la sëriñ bi yendu donc forcément dina am ñoo xam ni sama classe gi nga xam ne gi ay daanukat la fi ñu ci bari dañuy teel a ñëw ñiy fanaan si nga xam ne fi la ñuy nekk bu ñu jullee ba pare nekk fekk sëriñ bi ba sëriñ bi mën a dem nag dallu ji kër sëñ Tuubaa gi ci Kolobaan nga xam ni te naaj wi tàng na yooyu yëpp yooyu yëpp ay euh, euh, jël nañ ko en compte ba incha allah ñu ñaan yàlla daal ci kattanam mu yeggaleel ñu ko ci jàmm na mu demee woon ci ouverture ba ba nga xam ni dara amuñu ci benn jafe-jafe kenn loruwu ci kenn amu ci jafe-jafe yàlla defalaat ñu ko ba sëriñ bi dellu Tuuba ñaanal ñu indil ñu ñaanuk Serigne Touba ngërëmul Serigne Touba ñu bokk koog jullit yépp bokk koog taalibe yépp bokk koog réew mi yépp yàlla yokk jàmm yokk sutura yokk ngëneel ci nu dëkk bi jàmmal jàmmal dëkk bi te jàmm gi kat buy tàmbali tàmbali ci nga xam ne moom la fi yàlla teg mu yëlif réew mi yàlla ko jàmmal gouvernement am jàmmal sëriñ bi jàmmal njabootu sëriñ Tuubaa gi jàmmal ñëpp moom la ñuy ñaan te yàlla borom kattan la borom man-man la borom sañ-sañ la am na ko sañ na ko yàlla nañu ko defal